wala ilaha waat naa ne amul benn buur bu yeyoo jaamu jaamu gu di jur njëriñ ñàkk gaa jaamu gu du jur lor ilallahu ku dul yàlla. mu ne li leen wax ne yàlla may na ma gaa yu baax yëpp seen mbégte te dootuma lor te la ma doon sàkku yëpp am naa ko. mu ne li ma leen nettalil yëpp loolu ngëneelug yàlla rek la ndax ngëneelug yàlla mooy loo xam ne xëy na mën naa am fu mu tàmbalee waaye bu xasee nag ba jóg mën naa bañ a am fu yem. lam ñaanoon ca tuxfatu wa bi abi bakari wa abdullahi sitniya fadlan maaluhu tanaay yàlla moom moom gëneel kon su koy sotti ci jaamam dafay jëfandikoo coobareem nu ko neexee rek moo tax mu ne loolu nag yàlla defal ma lépp ngëneelug yàlla rek la jum jum ma defal moo tax mu ne fexlu maa din lil matti neex ma mooy baax na mooy tagg yàlla moom nga xam ne mooy sama borom baax na amul morom tawaat naa ne amul benn buur ba yooyu jaamu jaamu gu du jur njëriñ ñàkk gaa jaamu gu jur lor ku dul yàlla dimaax naa képp koo jaamu ku yàlla kooku lor la lay gën a def ci njëriñ la yàlla nag soo koy jaamu mu warlu la fegal la lépp luy xeetu lor di la ñoddil njëriñ yi yadu laman man daruhu aqrabu min naf'ihi la biisal mawla wala biisal asiru loolu la alquran wax intaha jublu na ila siwallaahi jëm ci ku dul yàlla maa lépp loo xam ne laa yelliix yellut bi ci yàlla wayoon xooxu dana ko jublu allazi la nga xamee ne xaliix aji yell la mooy aji yeyoo la bi ca moom mu ne lépp lu yellut ci yàlla kooku dafay jublu furut yàlla di max naa loolu mooy lu ñuy tuddee al mustahil lépp loo dégg ñu ne dafa jomb ci yàlla ñi di ko jàngale ci tawhid loolu ci keneen lay dal meedu yàlla yàlla moom lu dàqu ci moom dàqu na faw dootul saxata ci moom mais lu sax ci moom sax na ci moom faw te dootul dàqooti am loo xam ne jaayis la moo tax nag mu ne lépp loo xam ne rek mustahil la ci yàlla kooku mën naa dal mbindeef loolu bëgg wax fii waaye li nga xamee ne nag moom moo koy jul moom yàlla mooy li nga xam ne da koo yeeyoo alqaliix su ko arab waxee rek mooy jëddiir kon nga déggee ci mooy bépp melokaanu boo xam ne làmboo na mat lu mel ni ñaar fukki melo yi nga xam ne Sëñ Tuubaa noonu la koy jàngal mu amaat yeneen ñaar fukki melo yoo xam ne dañoo jomb ci yàlla yoo xam ne nag tabaarakalaa dañoo yell ci yàlla lu mel ni mu tàmbalee rek al wujud ak baqaaw ak al qidam noonu koy toppee ba bam jeex ba àgg ci al mutakalim dégg nga su ko defee nag moo tax mu ne intaha jublu na ilaa si wàllaay jëm ci kudul yàlla maa lépp loo xam ne laa yilix yellut bii ci yàlla lu jomb ci yàlla rek dana dal keneen mais du dal yàlla waaye yan xooxu dana ko jublu moom yàlla àll si la nga xamee na xaliix aji yeyoo la bii ci moom la yell ci moom tamu yeyoo ko moom dong daal dana ko jublu mooy melokaanu yu mat yi waaye lépp loo xam ne xeeti manqué la rek tabaarakallaahu te yellul ci yàlla rek ko mën naa dal keneen mais dal suñu borom subhaanahu wa taala loolu rek la bëgg a wax fii tawhid lay jàngale. farat daw na li xayrihi jëm ci kuréel yàlla mu ngoog firi na ko. an naqaa isu mboolem xeeti manki manki yi an naqaa mboolem xeeti manki manki yi kamaaluhu niki noonu la ko ñeelee alkamaalu mat sëkk intaxat googu jub googu jublu na ko muhakkama tabarakallahu mbir ma ma doon ku ñu xàtteloo mu ne nag lépp loo xam ne na na naqa isu la jam xolo ci naqsu mooy loo xam ne su daloon yàlla dañ naan yàlla kon matul dafa manqué dafa wàññeeku mu ne nag lépp loo xam ne xëyti manqué manqué la ak lu mën a doon tawat laam xam wuy juru la wala maamam wala doomam wala am soxnam xëyti yooyu yëpp doomu aadama lu tax mu di ko am tabaarakallaa wala feebar di ko dal dafa matut mu ne kon lépp loo xam ne xëyti manqué manqué la nag kooku daw na jëm ci ku dul yàlla waaye lépp luy mat ba tey jublu na yàlla kon loolu dafa daan jàngale moo xam ne mu tënku la nga ne ah mu ne la lépp luy xëyti manqué bu ko taqal yàlla jomb na ci moom ndax ku mat la nga ne ah loolu moom dégg naa ko mu ne la waaw lépp luy xeeti mat nag jàppal ne moom kooku yàlla na ci yàlla max naa mi nag dal jeex moo tax mu ne faraat daw na li xayrihi jëm ci kudul yàlla an naqaa isu lépp luy manki manki manki manki du dal yàlla mukk du tëq ci moom kamaalu xoo niki noonu la ko ñeele al kamaalu xeeti mat yëpp yàlla ni nga xamee ne manki manki dafa dàqu ci moom xeeti mat yëpp noonu la noonu la yellee ci moom dégg nga kamaalu xoo niki noonu la ko ñeele al kamaalu xeeti mat yëpp intihaat jublu na ko mu xàkkamaa mbir moom mu nekk ku ñuy xàtte yàlla moom mooy xàtte ñëpp. tabaarakallahu ñi nga xam ne ñoo koy sellal dégg nga ràngal ko mboole melokaan yu mat yi ak ñi nga xamee ne ñoo koy tëqal lépp loo xam ne dafa jomb ci moom ñëpp moo leen di boole xàtt leen kon mu mbir moom mooy koo xamee ne mooy ku ñuy xàtte. yaskuruhu dana ko sant albadunu yaram wi wal xal bi ak xol bi maxan mboole seen. bilaa si kaayitin ci lurut jàmbat. wan xam maxa notal na ma xit lii sama noon ba ma bañoon. yàlla sama yaram dana ko sant tabaarakallaahu santug yaram nag sëñ bi waxoon na ko mooy lan mooy ngay bëri xidma nee na yàlla euh, bi mu bindee làmmiñ bindeewul ko lu dul muy tudd yàlla ngeen gi moom dañuy defe ne làmmiñ wax moo ko tax a jóg wala gémmiñ lekk moo ko tax a jóg déedéet bu doon loolu yàlla du sàkk nit lenn lu ci nekk ci nit ki biko ko yàlla bindee am na lu tax waaye yaram moom li tax mooy jëmm ji di def effort di liggéey di yëngatu di jaamu yàlla di fàggu lew lu dagan comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam digalee xol bi nag moom lenn rek mooy njëriñam muy xalaat dégg nga kon moo tax sëñ bi ne sama xol ak yaram wi yëpp day sant yàlla tudd jàmbat dara jëmm ji duma ci jàmbat dara lépp dama koy jox yàlla ba mu jeex tàkk ci sant ko xol bi duma ci jàmbat dara duma ci nëbbu dara lépp génne naa ko ci moom xol bi bu ma yoroon lu may jàmbat sax duma ko jàmbat te yàlla moomee noonu ba ma doon bañ yàlla notal na ma ko ba ma mucc ci moom kon yaskuruhu dana ko sant albadunu yaram bi wal qalbu ak xool bi ma an boole seen. dégg nga bilaa si kaay dañ ci lurut jàmbat wan xamaxaa te notal na ma xitli sama noon bi ma bañoon ni ko yaram bi di sante xol bi di ko sante cër yi yëpp noon la koy sante te duma jàmbat dara ndax notal na ma sama noon ba tey. hadiyati samay may hadat gindi nañ ma bilaa taswifin ci lurut may nég négal wan xaada wamut na lii ñëw ci man al amnu sécurité bilaa taqwi fii ci lu du ak ragal mu ne samay may yi ma yàlla defal ñoom ci seeni bopp ñoo may soññ naan ma jogal sant jogal jaamu sa borom jogal def nangam lu baax rek may yi ma yàlla defal ñoo ma ciy soññ mel ku ma ci soññ daal naan ma jogal def ko ca sansa dégg nga bokk nag ñi nga xam ne nag tabaarakallahu dañuy góoxi seen leex lu leen yàlla defal rek ñi def ne dañ koo yeyoo na cell lu baax duñ ko def mu ko sante ko yàlla loolu ci baadoolo la bokk waaye neen lu ñuy tuddee sécurité muy assurance womatu na dugg ci man te amul kenn ku ma mën a tiital mbaa nga di ma ragalloo hadiyat yi samay hadiya hadat gindi nañ ma bilaa tas wi fii ci lur ak nig nigal mooy may ko yàlla defal daal da koy sant mais du ci xaar dara fu sant jotee rek dafay sant yàlla du tàggu moom wan xaada womatu na lii ñëw ci man am amnu sécurité bilaa tax wi fii ci lur genn aj ragalloo amul kenn ku ma mën a tiital déedéet gis lam tàmbali woon daanaka moom la tëjee ba muy tàmbali danoon basaranil baqi bila taqwifi wa qumtu saarihan bila taswifi bi muy tëj xasida gi mu ne hadiyati hadat bila taswifi wan xaadilil amnu bila taqwifi léegi nag dafa waxoon ci tarjumaan ja ju njëkk ja gannaaw bam ne bismillahi rahmaani wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman danoon yàlla wa sahida lii bi sukuri haasa fii nda xasida gi lépp ci sant la boobu léegi yaa ngi jàng bay di jàng yëpp daf doon sant yàlla yàlla may na ma lii rek moo tax nag mu tënkee xasida gi bi sukuri xaasaa fii yàlla nag ma seedal sama cant gi mi lay cant ci xasida gi dégg nga waaye nag cant gi lay sant ba tey na ma ko seedal wa fii kitaab yi ci sa téere bi di alquran wa fii rasul yi ak sa yonent bi sant gi mi lay sant yow ci sa bopp ci xasida gi ak sant gi mi lay sant ci alquran te yaa ko moom ak cant gi mi lay cant ci sa yonent bi di sa alayhi wasallam yëpp seedal ma ko sala yàlla na julli allahu yàlla taala moom mooy aji kawe ali ci yonent bi wasalamu te mu ci moom wa fii kulli ma ak nag ma seedal ba tey cant gi mu lay cant wa fii kulli ma ci biit lépp loo xam ne ahaboo bëggloo nga ko lii ci man fil xaali fii ci duna wa fil maali ak ëllëg yowmal xiyaam amin yàlla nga nangu ñaan waay yaa rabal alamin yow mi borom bi defi yàlla ni nga ma seedalee cant gi bi la cant ci xasidi gi nang ma ko seedalee ba tey ci sa alquran cant gi ko jaaree ci alquran ak sa yonent bi yow mi yàlla nga julli ci yonent bi sëlmal ci moom lépp loo xam ne danga koo bëgg ci man maanaam nga xam ne yàlla ci boppam moo ko bëgg man sëñ Tuubaa ma am ko yàlla nag ma seedal ba tey loole ne maa ngi la ciy sant fii ci nag alaxira yàlla na nga nangu ñaar yow mi borom bi def fi kon xasida googu jeex na tarjumaan ci foofu leem day dalaat geneen xasida boo xam ne nag da koo tënkee tabaarakallaahu euh, baata badala dama iri dégg nga bisaa euh, su ko defee dama ir nag mooy loo xam ne dafa jaayanteeg yàlla bokkut ak kax mi ngeen xam muy ñaar fukk ak juróom-ñett waaye ba tey bokkut ak laaj mi ngeen xam muy fanweer ak ñett waaye dama ir moom kooku kenn du xam xaddat bi kenn du xam li ci biir xam nga kax xam nga xaddat bi mais xamul lu ci biir laaj xam nga xaddat bi mais xamul lu ci biir ndax loolu yëpp dangay ngay jàng ci yeneen xasida mu ne dama koy suturaal ndax dënn maanaam ñi nga xam ne ay gor lañ seen dënn dafay nekk bàmmeel ci mën a denc secret te loolu mu jaayanteeg borom secret la boo xam ne kenn waru koo xam amaa nag sañ naay sant yàlla na ko yaa ma may nangam jaayante naa yow nangam jox nga ma nangam waaye lam jaay yàlla ci dëgg-dëgg ko kenn du ko xam fii ci àdduna dégg nga di maanaam mooy kenn du ko tudd du ko bind di ko wax ci xasida yi dégg nga wa badala moom yàlla maa ngi koy ñaan badana dana wetteel ma dama iri sama dama iri yi ma ko jaay bisaa ci lii mu ne yàlla maa ngi koy ñaan nag mboolem lu ma ko jaay te mu tudd ay damaayir xam nga damaayir ci arab mooy firi mbir yoo xam ne dañ koo nëbbu danañ ko firee mooy xol damaayir dana firi xor xol wala bàkkaar yi nga xam ne ni ki da ko def te mu nëbbu tubtu lahu min jumlati saqaayiri maal kabaa'iri wa min damaayiri wa min damaayiri ci xëjër astaxfirullah bi damaayir googu mooy bàkkaar yi nga xam ne dafay nëbbu tubtu lahu min jumlati saqaayiri saqaayir mooy yu ndaw yi maal kabaa'iri yu mag yi dégg tubtu lahu min jumlati saqaa'ir ma'al kabaa'ir mais wa min damaa'ir nag mooy yu nëbbu yi dégg nga moo tax mu ne yàlla maa ngi koy ñaan damaa'ir yama jaayanteeg moom maa ngi koy ñaan nag mu wettil mu wettil ma damaa'ir jox ma ko leneen te muy njëg gi dégg nga kon moom yàlla maa ngi koy ñaan wa badala ba dana ma wetteel damaa'ir yi sama damaa'ir yama ko jaay ta mooy ay mbir yu nëbbu la kenn du ko xam mu wetel ma ko bisaa bisaa ci lii te muy xasida rek. muy la ko ci yàlla fayee ba noppi mu di ko sant bisaa gi bu xas yi nga jeexee danga dégg mu ne a sukuri maadiyan bila iqaalatin wala fastin abadan amin yar baal mi na batatu dog na bay xaka njaay moo xamee ne ñaar fukk ak juróom-ñett la wa faaraxtu tàqalikoog nag a demir demir ga li wa ci man ngir jëmmi ka nga xamee ne saaka màng na al amir kilifa ga li xëyri mu jëm ci fudut man mu ne jaay naa ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam ne dama ko génn ci sama bopp ba mu set wicc nekkatul sama xol xalaatuma ko xam nga boo ko doon misaal léeg-léeg bi dana jaay marchandise moo xam ne dafay nekkaat ci xalaatam nekk ci xolom fu mu toll rek mel na ngeen ngeen ba jaayoon fas fasoo xaw a làpp lool mu jaay la ja mu jaaxle rek jaay ko fas yi nag mu jigi nag borom toppatoo ko ba mu rafet takk ko mu génn. mu taxaw di séntu fas yi ne fas yi dee suum si mënoon a jotaat gis ko kon xel maa lu tax mu jaayoon ko jaaxlee taxoon ak lapp gi fas yi lapp ku mën fas nag jël na ko jand ko defar ko nam baaxee tabaarakalaaw mu gis ko xeemaat ko loolu day am. kon ci misaal sëriñ bi lam jaay yàlla xelam dootu ci nekk mooy génn na ko ci boppam ba set wicc batatu bayha bayha silahin lam yufsaxa def naa ne boo demee ci bax baxa da nga ko dégg mu ne jaay naa marchandise moo xam ne tabaarakallahu génn naa ko ci sama bopp ba seet wicc te itam dootu nekk sama xel ak sama xelaat ak sama xol waaye tàqali ko naa ba tey lu ñuy tuddee damir mooy ba tàllam jaay yàlla te mu tudd damir ay mbir yoo xam ne dafa nëbbu mbiri biir la nee na lépp dama ko def ngir jëmi suñu borom mi nga xam ne kilifa ga nga xam ne moo jiite nasaraan ya sun borom màng na ko mu jëm ci furun man di max naa mooy benn lor du juddoo ci kilifa gi ba ñëw ci man. batatu dog bay xa ja bay xaka njaayum lu ñuy tuddee ñaar fukk ak juróom di max naa ba ma ko jaayee rek laa ca laa ca noppi ba tey wa faaraxtu tàggoog naa a damir damir ya am na leneen lu ma jaay yàlla lu ñuy tuddee damir ba tey ba ma ko jaayee rek laa ci noppi sama xel dootu ci nekk mukk dama koo def nag ñoom ñaar ñëpp lii wàcc man ngeen jëm yàlla mi nga xam ne saaka màng na al amir kilifa ga li xëyri mu jëm ci furun man kon foofu tudd na fi lu ñuy tuddee ka tudd fi damir donte indul fa laaj dégg nga daa mel ni sax boo demee ci béy bu mujj ba da dégg mu ne asxaaba rabbi li si waa nax wi damir wa lajj yastara wa xayabal amir kon fi moom dafa indi ñett yëpp muy damir bi ak kabi ak laj bi dafa xa joñ na bi sama borom kullama lépp loo xam ne tawajaxa dana jublu li ci man jooñ na ko li si waaya mu jëm ci furun man min asan ci lépp luy lo loo xam ne itajaxa jublu na ma mu ne lépp loo xam ne nar na maa jublu rek ak lépp loo xam ne dama ko jaay yàlla mu nar jublu wala lépp luy lor lu ma nar a jublu rek bala moo yegg si ci la ko yàlla di dàq mu jëm ci feneen wàll gu bokkut ak man man daal lor noppi naa ci. moo tax mu ne dafa joñ na kan moo joñ yow la wala mu ne déedéet rabbi sama borom lum joñ mu ne kullama lépp loo xam ne tawajaha dana jublu lii ci man dàq na ko li si waaye muy jëm ci furut man min assan ak bépp lor boo xam ne itajaha jublu na ma. lu nar a jublu ci man rek ca la ma ko jaay mbaa bépp lor bu nar a jublu ci man rek suñu borom da koy dàq bala mu yegsi ci man dégg nga te itam feneen lay jëm fu dul man. lam yan hu du jublu mukk lam yan hu jubluwul mukk saati sama jëmm jaalibin lépp luy aji bijji lil maradi ñeel tawat yi feebar yi boo yokkut dana womatal lii ñeel ma an nuuru leer ku la xaradi ci sama biit bépp xemam mu ne sama jëmm ci boppam sunu borom musal na ko ci lépp luy sabab tawat loo xam ne daal bu ko nit ki lekkee tawat ca wala yàlla teg ko feebar ngir lam jëfandikoo bala mu def bàkkaar ndax léeg-léeg nit ki def bàkkaar yàlla sàdd ci moom feebar lépp loo xam ne day sabab daal ñu ne nit ki yàlla teg nu ko tawat yàlla musal na ma ci waaye lépp lu may xemam sunu borom def na ca leer kon sëriñ bi lu ma sa rek yàlla ca tabal leer dàqal ko ci lëndëm ndax li ngay xemam ci àdduna yëpp la ci ëpp lëndëm rek la du la jural mukk ak texe dalay sànq rek di la yóbbu ci alkande donte ku bëgg ëddu nga ku bëgg àdduna nga kon lam yan wu jubluwut saat saati sama jëmm jaalibun lépp loo xam ne aji ñoddi la lil mari di ñeel feebar yi lépp luy ñoddi feebar rek ba bam ñëw ci nit ki bam koy jàmbat loolu duma jublu yàlla musal na ma ci te wayu xuru dana womat li jëmee ci man anuuru leer ku la xarit ci sama biir bépp xemam teew mallakani maxtiira lii in amlika wala in amlika wa kullu man wa kullu man maala li durri ahlaka na ma mallakani moom loo na ma maxtiira la tànnalees na ko lii ñeel ma ne ma an amlika moomal jëlal wokul kullu man képp koo xamee ne maala jengal na li ñëw di ma lor ah axlaka xala gis ko mu ne lépp lu ma yàlla tànnal jox na ma ne ma eh jëlal ya moom Sëriñ Tuubaa nee na lépp lu ma yàlla tànnal rek jox na ma ko jox na ma ko ne ma jëlal yaa moom an am lika ne ma eh jëlal yaa moom lu ma yàlla tànn rek nee na ma jëlal ya moom kon képp ku jéng ñëw bëgg maa lor na nga xam ne yàgg yàlla la sama yoon nekkul ci waaye alaa kulli xaal xaalaku moom dan la dal. ko nag su ko arab waxee xalaka day firi maata kon képp ku attaqué Sëñ Tuubaa ngir bëgg koo lor faaw faatu nga jëlee ci xaalaku te mooy faatu rek. kon man la que ni moom loonu ma martiir la tànnalees na ko lii ñel ma ne ma an e am li ka moomal mooy jëlal wa kullu man kon nag képp koo xam ne maa jengal na maa la mooy jeng na rek li dur yi ñëw di ma lor si laka xaala gees ko lépp lu ma yàlla tànnal daal jox na ma ko ne ma jëlal yaa moom dégg an saaniya taskiinu taxriban mada bilaaru jooxin lii wa lil mada an saaniya fàttaloo na ma a dëkkal gi ma yàlla dëkkal fàttaloo na ma taxriban tumuranke ja nga xamee ne mada wëy na bilaaru jooxin ci lu muy dellu si waat lii di ñëw ci man wataaba tey na li ñel ma almada la wëy te muy tukki ba mu ne léegi nag dem gi ma dem ci tukki ba ñëw yàlla dëkkal ma mu ne waay waay tax na ma fàtte coono baag tiis yaag métit yaag xew-xew yaag jafe-jafe yaag musiba yaag lépp tax na ma fàtte ko ah dama xam ne nit rek léeg-léeg bu demee ba am këru boppam dana fàtte coono yam daan dund ci jamono yi nga xamee ne amutoon kër te ñàkk kër ku ne xam ne dafa méti rawatina nga nekk ci kër jàmbur rawatina kër goo xamee ne nag da nga faa nekk rek di luye di luye bis boo demee ba am sa dëkkuwaay bopp nag ku ne xam ne da ngay fàtte coono yëpp ngir am nga dëkkuwaay sëñ Tuubaa nag nee bi ma demee ci géej gi ba ñëw ci gàttal ba nga xam ne suñu borom musal na ma ah wax dëgg yàlla nag nee na fàtte naa lépp lu ma doon daj ci biir géej ga bépp tumuranke rek sëñ Tuubaa nee mujj naa fàtte ko buñ na sakkana fulaanun almansila mooy askanuhu bihi sakanal qanaata wa naxwaha dégg nga xawmaha wa adalaha bi naari wa naxwaa sakanal kalima wa qafa aliha bi sukun waaye taskin bii li muy fi rek mooy ko xam ne dëkk na ba noppi maanaam sanc na dëkkam dëkk fa nekk fa nekk ci jàmm moo tax mu ne nag dëkk gi ma yàlla dëkkal moo tax na ma fàtte tumuranke ba ba ma nekkee ci géej ga te dootuma delluwaat ci géej gi mooy bilaaru joxoñ lii duma ma delluwaat mukkut ci tumuranke ba kon nag dal na tey ne ci man waaye lëwëy te moy tukki géej ga ansaaniya fàttaloo na ma ataskinu dëkkal gi ma yàlla dëkkal moo ma fàttaloo taqriban tumuranke gi nga xam ne ma daa wëy na mooy jeex na bilaa rujjaan te du dellusiwaat lii di ñëw ñëw ci man mooy kenn dootu mu yóbbaat ci tukki ba wataa ba tey ne lii ci man almada la wëy te mooy géej gi rek muy tukki ba ataaniya dikkee na ma mooy jox na ma asikra téere alxakima bada buñ xereñee ci solo lu fàddu almunsilu yàlla muy aji wàcce xam ji moo ko jox wataaba tey na watani samay dëkk wata ba na almansulu sama kër mu ne sunu boroom moom mi wàcce alquran mooy almunsilu moo jël téere bi nga xam ne dañ koo xereñee ci solo lu fàddu aaye bu ne fu mu tëdd la tëdd baat bu ne fu mu tëdd la tëdd te kenn du soppi maxnaam mi te ka ko wax kenn du ko laaj lu tax nga wax ko te waay def des na lu ko laaj laa yusalu amaa yafaalu wahum yusaluna yàlla mi wàcce alquran daal jël na alquran teg ko sama loxo samay dëkk yi ma sancal sama bopp yépp teey na waaye sama kër ba tey tey na sama dëkk ya kër yépp sunu borom def na sa lu ñuy tuddee sécurité sama xol dal na ca sama xol sedd na ca tee na raafaqani àndante nag man waxta masiiri waxtu sama dox lil ahad jëm ci yàlla muy kenn tawfiquhu ak tawfiqalam walla yëkkil nii te duma jëng mukk walla yëkkil nii te jënguma li ahad jëm ca kenn mu ne ba ma nekkee ci géej dama doon dox jëm ci yàlla muy kenn sunu borom def nag tawféexam mu ànd ak man tawféex su àndateeg yow rek lépp lu baax dafay dajeeg yow sunu borom da lay hubbil bunt yiw yëpp tëjal la buntu safaan yi tawféex soo ko doon misaal mooy ku ku war a génne néegam war a wuti ji dara bitim réew naka nga génnee sa néeg rek loolee fekk si la. sëriñ bi ne nag liggéey gi may liggéeyal yonent bi ci lu ma yàlla defalee tawféex raafaxtu fi xidmati tawféexu xaaliqina al mulhimil xayri maahil jahli wal alabi moo tax fi mu a raafiqan yi àndante nag man waxta masiir yi waxtu sama dox li ahad jëm ci yàlla mi kenn tawfiqu ak tawfiqalam walam yëkki ni te jënguma li ahad jëm ci kenn gis nga mooy mooy mooy li ma la wax léegi rek mooy tey masalan nga amoon soxla bu bu bu mu wóor na leen lii faaw nga jóg dem doxi ko sa tànk ni ki ngay génnee sa néeg rek bëgg dem ci kenn rek mu fekk si la wala bala ngaa xalaat ne xaaral ma génn rek dem loolu moo lay fekk si. moo tax ma ne walam li ahad jëm ci kenn. ndax ku am tawféexu bu yàlla doo dem ci kenn fi nga nekk fa la la yàlla defee kenn la ngay bëgg loolu nag mooy tawféex tawil lanaa umranaa sahhil lanaa batnat waab lanaa tu doo tawféex yi laaw loolu nag xasida rek jàng ko di koy maye kon mu ngi noonu yaquudu dana womat lii jëmee ci man naafixa xel min gën kaa jëriñe ci xam-xam yi waxalaal ak yu dagan yi walam amil te du jéng mukk di ñëw ci man li xad bin ñeel aji mer aw li dalal wala aji réer mu ne yàlla ci boppam xam-xam ya ëpp njëriñ lay womat di indi ci man ak xéewal yi dagan yi ñoom lay womat di indi ci man képp koo xam ne merkat nga wala nga nekk ku réer ngay niru yahud wala nasaraan bu ne alqadab mooy yahud rek wala nga nekk dalal muy nasaraan yi ngir seen sànku tuddee nañ leen xadab ñoom yahud yi ngir yàlla daf leen mere waaye nasaraan yi tuddee nañ leen dalal ngir dañoo réer bay tuumaal yàlla yàlla ñett la ñeent la kon yëqulu dana womat moom yàlla liy ci man naafian ilmin gën kaa jëriñ ci xam-xam yi waxalal ak yu dagan yi walam amil te du jéng di ñëw ci man du jéngal moom yàlla muy ñëw ci man li xad aji mer aw li dalal wala ak réer bu la nee amil du jéngal rek ñëw ci man li xad bi ñeel aw li dalal wala réer maanaam réer dàqu na ci man mer dàqu na ci man waaye xam-xam yi waxtu ne dañuy sotteeku ci man xéewal yu dagan ba te dañuy sotteeku ci man loolu nag yàlla moo koy def bextu jaay naa siwal islaam yi lu bokkut ak lislaam bil islaam jëndee ko lislaam wa ubtu dellu naa xaani man di aji màng la ma doon bëgg yëpp bilaa malaami ci lu benn yeddaange mu ne lu ngeen dégg ñu ne lii du lislaam gu tukkee ci yàlla te wa man yebtaxi la yàlla wax xayral islaam yi diinan falan yuqbalu minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirina lu wuteeg lislaam rek bu doon marchandise dama koo jaay jëndee ko lislaam njëg ma ci am yëpp ma jëndee ko lislaam lépp lu wuteeg lislaam rek loolu mooy la Sëriñ Saali daan wax lu lislaam aw ma ci defar aw ma ci ak yàq maanaam bu defaroo defaruma ko bu yàqoo yàquma ko loolu mooy ku mandu rek lu lislaam moom da nga ci war a mandu dégg nga koo mën a génnee ci lu dul lislaam nga génnee ko ci bu ñëw ci lislaam mooy toolu li Sëñ Tuubaa wax nii lu dul lislaam Sëñ Saaliw nee na aw ma ci defar aw ma ci ak yàq kon loo gis lu dul lislaam rek jàppee ko ab xëyte marchandise jaay ko nag ci bañ koo def jëndee ko topp lislaam moo tax bi mu ko defee ba noppi la ma doon wut yëpp kaañ ma mooy am naa ko màng ma màng mooy ki dem xare moo koy am boo géñee say noon màng ba nga fay jëlee te loolu dafay tegtal yaa leen géñee duma leen jël victoire ba su ko defee nee na nag am naa màng ma te aw ma ci genn ak yeddaange kon beextu jaay naa ba noppi si wàllu islam yi la bokk ak lislaam dama ko jaay bil islam yi jëndee ko nag lislaam wa ubtu dellu naa xaaliman di aji màng la ma doon bëgg bilaa malaami ci loolu benn ak yeddaange gis nga ci loolu benn yeddaange amul ci sabba joñ na li xayri kalkali mu jëm ci furut sama xol alwaswaasu jax-jaxal wa doona xeeb loona xatti sama mbind fil xedaa ci samay biit noon al aljawaasu gaynde aljawaasu mooy al asad mu ne sama xol ci boppam lépp luy xeeti jax-jaxal ndax jax-jaxal ci xolu nit ki lay nekk sikk sàkk ak jax-jaxal saytaane moo koy def allati yuwaswisu fii suduuri naas mina jinnati wa naas alxuraan nee na saa boo tuddee yàlla mu daw génn ci yow mais yàlla may na ko muy daw ci sa deret di daw ci sa xol. mu ne nag sama xol ci boppam lépp luy jax-jaxal juy nekk ci xol sama xol moo ko daq mu jëm ci furut man xol day daq jax-jaxal ndax xol boo xam ne li ngay xalaat rek mooy lu baax kon xol boobu ci boppam yaa sooy sa bopp yaa fexe na ba sa xol set wicc kon xol yaa koy jéem a defar mu doog a baax. waaye boo ko bonalee mu bon boo ko baaxalee mu baax waaye mu ne suma mbind mi ci boppam moo féetee kaw gaynde xam nga loolu tas bii la rek gaynde ci boppam bu nekkee ci biir xare ku ne xam na ne bu dee gaynde nit nit koo xam ne dañ koy dàkkantelee gaynde ngir jàmbaaram bu neke ci xare dafay fàddu noonu ñuy daan rek misaal ku mel ni Xamsatu ku mel ni Ali ibn Abi Talib Xaalid ibn Walid jàmbaar yooyu ñaata nit lañ rey ñaata noon yàlla lañ rey kenn xamu nuñ toll mu man nag ñooñu nañ daan rayee ca jamono yonent bi man sama mbind ci boppam moo leen féete kaw ci dàqaraye dégg xam nga mbind moom du nit ba nga koy ba ngay misaal mbind bi dafa jàmbaare déedéet waaye amaa ki nga xam ne dafa nekk ci xare di rey nit kooku jàmbaar la ki téye jaas di bojjanteeg yéeféer yi léeg-léeg ñi caw ko ko léeg-léeg mu caw kooku jàmbaar la ku ñeme moo koy def mbind mi nag du nit mu ne waaye nag mbind mi ci boppam xeeb loo ne gaynde gi nga xam ne day fàddu noon yi ci biir ci ci ci biir xare ba kon saba joñ na li xayri calcul yi mu jëm ci furu sama xol al waswaasu jax-jaxal jax-jaxal daal génn sama xol ba seet wicc woo doona kawe na mooy xeebloo na mooy kawe na rek woo doona bu la neex nga ne kawe na xatti sama mbind fii na daa ci noon ya al jawaasu gaynde maanaam ba ma nekk ci samay noon daal sama mbindi ci boppam ni muy def noon ya te tabaarakallaa moo féete kaw fuuf na nga xamee ne gaynde ga nekk ci toolu xare te ñu gën koo xamee ci nit ku nekk ci toolu xare muy def ay noonam sama mbind lu féetee kaw loolu lay def samay noon kon gis nga ko comme mbind mi lu ne mën na ko. asxaaba dàq na rabbi sama borom li si waa nax yi mu jëm ci furut sama wàllu ak damir damir ga. wastara jand na laj ya samak laj. waqaya ba perte na. waqaya ba nëbbu na. waqaya ba nëbbal na ma moom yàlla al amir kilifa ga. mu ne lu ñuy tuddee damir tama jaay ko yàlla dàq na ko mu jëm ci fudul sama wàll marchandise moom di demir ma jaay ko yàlla ba nëpp dàq na ko mu jëm ci fudul sama wàll nga fi indi na laaj waa laaj ya sama laaj waaw gi bokkut ci ak yaa gi waaye laaj gi mooy laam rek ak jiim gi mu ne yàlla daal jënd na fanweer ak ñett ya ma ko jaay ba noppi jox ma njëg gi waaye ka nga xamee ni seen kilifa gi la ñoom buur ya moom la tàmbali woon li wàcc man sàq li xëyril amit gis nga ni mu tàmbalee xasida loolu la koy tëjee fee danoon ba bay xàkkaax wa faaraxtu damir li wàcc man sàqali xayriyal amir fii itam bi xasida gi jeex baat bi mujj tabaarakallahu moom la ko tëjee kon asaaba dàq na rëbbi sama borom li si waa nax yi mu jëm ci furu sama wàll ak damir damir mooy lam ko jaay wastara jënd na lajjee sama laj te mooy fanweer ak ñett ma ko jaay ba tey yàlla jënd na ko waxaya ba mooy fàddul na eh, fa fàddul na al amir buur ba mooy buur ba daal gisuma ko moom it gisatut ma kooku mooy xayya ba bu ñaqee ba mooy koo xam ne daf laa fad nga fàddu ko moom mënul laa gis yooyu mënoo koo gis koo xam ne defe naa daf laa noonee woon yóbbu la fu ne ci géej gi ñu dem ba jëmmi jamono yo mënoo koo gis moom mënul laa gis ku ne xam ne lii sëñ bi mu koy wax boobu mi ngi njaarim boobu dem ci géej gi ba ñëw moom ci boppam man man man mantu gis noon ba noon bi moom mantu gis sañ bi kon loolu lay tegtale mooy suñu borom musal na ko ndax ku fàddu moom mooy xilaafu saxaada ki fi nekk moom mooy la ñuy wax as saxaada ki nga xam ne nag moo fi nekk ak sëriñ bi ñoom ñaar bis bu ñu xëyee di gisante kooku as saxaada la mooy xam ne dafa teew ci sëriñ bi waaye bu ñu ne xëy moom ku lama qaaba anil insaani sawaun akaana muhasalan fil qulubi am xayra muhasal dégg nga lépp loo ne fàttali doon niki rek mooy gisul ko rek loolu mooy xaybu kon noonu sëriñ bi te mooy seen kilifa gi noonu la sunu borom mujj def ko mënatu ko gis sëriñ bi sëriñ bi boobu mënatu koo gis. dafa naa ne suñu tubaab bëggul koo gis sax moo tax ne moom yàlla waxee ba fàddul na ci man al amir kilifa mënatul maa gis. léegi nag lim tënkee xasida gi mooy wa badala dama iri bisa mu ne yàlla maa ngi koy ñaan wa badala mu wetteel dama iri sama dama iri ma ko jaay bisa ci lii asukurita mooy cant goo xam ne maadiyan aji wëy la bilaa iqaalatin ci lurul xàcc wala fasqin wala fireeku abadan faw abin yàlla nga na ko ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla mi borom bindee daal li ma jaay ci dama ir maa ngi koy ñaan maa ngi koy ñaan mu jox ci loo xamee ne waxtu wu ne damay continuer wéy rek di ko di ko sant dégg nga nga xam ne xàcc du ci am maanaam la ma ko jaay ak njëggam ma jox xàcc du ci am waaye marchandise ma te fireeku du am nga marchandise fireeku moom xam nañ ko mooy commerçant yi jaay xam nañ lan mooy firi firi marchandise mooy jaay nit ba yàgg nga ñëw na ko lii dafa am defu mu delloo la xaalisam nga jox ko marchandise wala nga jël sa marchandise téye ko xëy na fa ngay jaayee doxul rek nga delloo ko ko loolu da am ci mbiram commerçant yi mooy lu ñuy wax firi firi firi ndax waxaale ngeen ba nëpp ba juboo kenn ku ne kii jox na njëg kii jël na marchandise ñu dem ba yàgg nag kenn ki ñëw xàcc dégg nga lu ci ëpp nag ki jand moo koy faral def mais nekkul ku jaay ki jaay moom li bëgg rek moo jël xaalisam ñaareel xàcc boo ko déggee rek ki nga xamee ne moo moo jënd moo koy faral di def sëñ bi nag moo jaay yàlla yàlla jënd te kenn du ci xàcc ñoom ñaar kon maa ngi ko ñaan mu wéetal ma sama dama iri dégg bisaa sukri ci gii cant goo xamee ne maadiyan aji wéyal laa ko bisaa sukri ci gii cant nga xamee ne maadiyan aji wéyal laa ko cant gu wéy mooy guy sax rek bilaa iqaalatin ci lurut xàcc wala fisqin wala ak fireeku abadan faw amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow yàlla mi borom bi defi kon defe naa ne xasidu googu nga xam ne moom la tënkoon wa badala dama iri bisaa tabaarakallahu noonu la toll dafay dalaat geneen xasida incha allahu ahonsu danaa muslu billahi ci kàttanug yàlla mina saytaane ci saytaane arajim kada kuñ jam moolis yërmande yàlla wa inni yaman ohensuha danaa ko muslu wa inni yaman ohensuha danaa muslu bi ka ci sa kàttan wa suriyataha nga musal ko moo njabootam mi na saytaane ñi mucc ci saytaane arajim kada kuñ jam moolis yërmande yàlla rabbi yow sama borom axonsu danaa muslu bi ka ci sa kàttan min xamasaati sayaatini ci jax-jaxal sayaatini yi wa axonsu danaa muslu bi ka ci sa kàttan rabbi yow sama borom an yax duróon yi walis ñuy teewee samay mbir nee na maa ngi muslu ci kàttanug yàlla mu musal ma ci seytaane ma nga xam ne da koo dàq mu walis yërmandeem waaye maa ngi muslu ba tey ci kàttana moom yàlla xam nga xaagoog demir la guy dellu ci jigéen ndax Mariama ma nga xamee ne moom la yaayam xëmboon ba mu ko yimbee dane wa ini eh, samaytuha Maryama dégg nga wa ini onsa bi ko surita min sitaan rajim moo tax ñu wax ne ñoom borom xam-xam yi bokk na jigéen ñi nga xam ne seytaan mënatoon ci moom dara wax jooju wax ju sunu borom nangu la moo yàlla musal na way juru Maryama ba nga xam ne doom jii di Maryama seytaane amut ci benn kàttan benn pexe kon sëñ bi su ko delloowaat rek di ko indi ci xasit da ciy jullu ba tey sunu borom musal ay ñoñom ñëpp. waaye rawatina kuy jàng xasida yi suñ borom musal la ci moo xam góor nga wala jigéen moo tax mu ne man maa ngi muslu ci sa kàttan tabaarakallahu nga musal mboolem samay soxna musal sama njaboot musal samay taal taaliba yëpp ci seytaane mi nga xam ne da nga koo dàq mu mande yow sama borom maa ngi muslu ci sa kàttan jeex-jeex yi nga xam ne saytaane da koy jeex-jeexal nit ki ci xolam yàlla nag ma ci musal yow sunu borom maa ngi muslu ba tey ci sa kàttan saytaane lépp lu may def ci lu baax bu mu ndax ñaareelu lu jàmbi di def ci lu baax rek seytaan mën na ko teewee te bu ko teewee rek mën na ko yàq wala li lay jàmbi bu demee ba toll ci sukuraat nga xamee ne dee rek ko dese foofu seytaan mën na faa ñëw yàqal fa jàmbi mu dee jaar noo dem safara yàlla na ci àll musal wala yaasu billaahi wala yaasu billaahi bismillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi arrahmaani buur ba di xéewalaa kon ñëpp ci àdduna arrahimi buur ba di aji yërëm ko soob ci àllaaxira wasala yàlla na julli faw allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sanga bi wa mawlana tey sunu kilifa muhammadin turam di muhammad wa ala ali ak ñoñam ña sama bi ak saabaam yépp wasalama tamu dolli ko wóolu tasliman dolli ko wóolu allahuma yow sunu borom noo ngi lay ñaan sëli yàlla sax dàkk di julli wasalim te sëlmal wa barik te dolli barke ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam di muhammad wa ala ali ak ñoña sama bi ak yépp wa taqabal yàlla na nga nangu yow yàlla mi nii jëlee ci man xaasa duha ak gii ñaan bi xaboolin ci nangu goo xam ne nin gu rafet la amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabal alamin yow yàlla muy borom bindee fi yaa xaribu yow mi aji jege ji yaa mujibu tey aji wuyu ñaan ji yara rabal alamin yow yàlla muy borom bindee fi wacaalu yàlla na nga ko def moom ñaan gi saxaadatan mu nekk texe daa imatan guddi aji sax li man ñeel ki nga xam ne la waxees na ko fiim ci seen biir fii daaree ni aduna ak alaaxira na nga ko ko defal rabbana yow sunu borom taqabal yàlla na nga nangu mina jëlee ci ñun sunu ñaan innaka nag yow ca dëgg-dëgg anta yow asamihu yaay aji dégg ñaan ji alxalimu yaay aji xam lu jaam bi di soxla rabbana yow sunu borom taqabal yàlla nga nangu mina jëlee ci ñun sunu ñaan innaka nag yow anta yow asamihu yaay aji dégg ñaan ji alxalimu yaay aji xam lu sa jaam bi soxla rabbana yow sunu borom taqabal yàlla nga nangu mina jëlee ci ñun sunu ñaan ak sunu jëf yëpp innaka nag yow anta yow daal ca dëgg-dëgg asamihu yaay aji dégg ñaan ji alxalim yaa aji xam la nga xamee ne sa jàmm bi tabaarakallaahu moom la soxla ak lam yeyoo ak lam yelloo lépp kon xasida dafa jëm ci ñaan moo tax mu ne maa ngi tàmbale ci tur yàlla yàlla muy xéewalaa kon ñëpp ceedu na yàlla mi nga xamee ne mooy aji yërëm ku ko soob ci alaxira yàlla nga julli yow yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi mi ga xam ne mooy sunu sang bi di sunu kilifa turam di Muhammad gannaaw ba mu tàmbalee ci tur yàlla yàlla muy xéewlaa kon ñëpp ci na tey aji yërëm ku soog maa ngi dagaan ci moom yàlla mu julli ci yonent bi di sunu sang bi di sunu kilifa turam di yan yàlla julli ci waa Muhammad ak saxaabaam yëpp te dolli ko kóllite yow sunu borom maa ngi lay ñaan ba tey nga dellu julliwaat sëlmalaat dolli barke ci yonent bi di sunu sang bi turam di Muhammad yàlla nga julli ci waa ak saxaabaam yëpp ñaan gii ma def nag muy xasida gi nag ma ko nangul nangu gu rafet mooy nangu goo xam ne sunu borom dootu ko delloo loolu mooy nangu rafet fa taqabalha rabbuha bi qabulin hasanin jàngoo ci alquran yow sun borom yàlla nga nangu ñaan yow mi borom bindee fi yow mi aji jege ji yow mi aji nangu ñaan yow mi borom bindee fi dama bëgg daal ñaan gi daal nang ko nangu nangu gu rafet rek mooy bul ko delloo bul ko ñàkk nangu waaye xasida gi muy ñaan gi daal ci gàttal na nekk texe goo xam ne dafay sax faw ci man mi ko wax jëmale ko ci jullit ñëpp ci xeetu yonent bi ndax xasida dafay ñaanal xeetu yonent bi ko defee man mi taalif xasida jëmale ko ci xeetu yonent bi di leen ñaanal damaa bëgg nag nga defal ma ci texe goo xam ne dafay sax faw àdduna ak àllaaxira kon nag yow sunu borom na nga nangu lépp lu ñu ñaan ci xasida gi ndax yow lépp lu waaye di ñaan dégg nga ko waaye xam nga itam la nga koy jox ak lam yelloog moo tax mu bantu nag rabbana na minna innaka anta samiul alim rabbina da ko bantu ñetti yoon dellu waxaat rabbana taqbal minna innaka anta samiul alim dellu waxaat rabbana taqbal minna innaka anta samiul alim loolu ba tey dafay dellu ci ñaan yi sunu maam Ibrahima doon ñaan ca Makka gannaaw bi nga xam ne taxawal na lam fay taxaw yëpp taxawal am yéene nag li mu bëgg nag suñu borom defal ko ko ci dëkk bi di màkka su ko defee mu ñaan lépp ba tey li nga gis ci màkk li yëpp ak lay xawee sa ñëw yi yëpp ba ëndee di tukki ci ñaanu sunu maam Ibrahima la barkeem ñaan gi nga xam ne sunu maam Ibrahima da ko ñaanoon ca màkka ba ci yonent bi nga xam ne mooy ki mujj ci jamono yi sax mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam moom mujj ci yonent yi nga xam ne ñëw nañ ci jamono kenn ñëw ñëwati ci gannaawam ba tey ñaanu sunu maam Ibrahima la rabbana wa fa'al fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika Ibrahima daan ñaan yàlla na ko yàlla na nga fii ab yónintu dégg nga te ñaan googu suñu borom def na ko moo tax mu daan wax ne man maay mbégteem xeesa ndax man la bégaloo nitam ña ne am na kuy ñëw sama ganaaw waaye itam maay lu ñu tuddee ba tey sama ñaanu maam Ibrahima ndax Ibrahima moo ma ñaanoon ci dëkk yi moo tax ma ñëw fi ma juddee ci dëkk bi feeñ ci arab yi loolu yëpp boo demee ci muqaddamatul xidma da nga gis ne saa bu jullee ba danaan day indi xeeti wax yooyu nga xam ne xeesa waxoon na ko mbaa ku mel ni Ibrahima waxoon na ko di ko ñaantal ñëpp lañ doon junj rek seen nit ña mooy yonent bi sallallahu alayhi ñëw ci jamono. kon wàccaal wu moom ñaan gi yàlla nanga ko def saxaadatan mu nekk texe daa imatan guddi aji sax li man ñeel ka nga xamee ne xii la waxees na moom waxes na ñaan gi fiim ci biit xeetu yonent bi yëpp nanga ko ko defal daal muy texe muy texe goo xam ne dafay sax foofu fii daa leen ëpp nag ñeel ko moom mi wax xasida gi na yow sunu borom ah taxabal yàlla nanga nangu mina jëlee ci ñun sunu ñaan innaka naka yow ant yow asamiyo yaay aji dégg ñaan ji yaay aji dégg ñaan ji al alimu yaay aji xam li nga xamee ne tabaarakallaahu sa jàmm bi soxla na ko ak la yàlla ci moom pour nga jox ko loolu lay signifié rek baatam anta samiul alim loolu rek lay signifié booy ñaan yàlla mooy nangu te dégg na la te itam bu fekkoon ne da nga ñaan un milliard xam na ne bu la joxee un milliard nga beew mu jox la ko un million wala mu defal la ko wér gu xëñ la xaalis ba. loolu toujours bo al samion fu mu ñëwee ci rek ñaareel basiiru mooy ñëw wala wala mu ñëw balaa leneen di ñëw noonu lay toppantee. kon tabaarakallaahu xasida gi booy xool lépp da ko jeexal ci ñaanal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag rawatina ñi nga xam ne moom dañuy am imaan am islaam am ihsaan lépp lu leen nar a gàllankoor seen aduna ba seen alaxira daal sëriñ bi ñaan na ko ci biir ñaanal ci borom xam-xam yi ñaanal ci ñëpp tabaarakallahu buñ ko firee da nga xam lu xasida gi làmboo lépp da ko jeexal ci gàttal ñaanal xeetu yonent bi moo tax mu sàkku ci yàlla indi indi aaya ji baamtu ko ñetti yoon mu mel ni kon ñor na ko rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim su ko defee nag mu baamtu ko ñetti yoon ngir bëgg suñu borom lii muy bëgg ñaan muy dox diggante borom bi ak jaam ñi sàkku leen ci yàlla mu tinu leen xeetu yonent bi yépp mu sàkku ci yàlla tinu leen ba yàlla xettali leen musal leen lépp lu leen di gàllankoor ci ak alaxira bañ mën caa mucc kon xasida la xam ne daal tënkiwut ko tënkiwut ko aaya alquran wala benn baatu arab waaye dafa jëm rek ci ñaan xëy na jombut loolu moo tax tënkiwut ko comme ni mu baaxoo xasida yi ñu romb li mu koy tënkee wa badala dama iri bi saa bii ñu mujjee romb gis nga da koo tënkee baata badala dégg nga dama iri dégg nga bisaa moom la tënkee xasida gi waa gi da fa indi rek wa badala gi tënkiwul xasida gi waaye badala dama iri bisaa rek la tënkee xasida gi waaye xasida gi comme dafa jëm ci ñaan nag moom daa mel ne tënkiwul ko lenn. dafa dafa commencé rek di ñaanal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mi ngi tàmbali fii moom xasidi gi dégg nga mi ngi tàmbale bismil ilahi wa huwa rahmaanu wa huwa rahiim walul asmaanu yàlla yàlla defal ñu dégg ak topp